moom la tëjee xasida gi muy berndeel nit ki ci ruu ci jataay bu mel bii ak berndeel ko ci bernde yi nga xam ne suñ bàkki galo ngal ñoom moom lay gi asku askuru oo taw ji oo xiraaya ilaye fii sëyri wa fii xuraaya kon bàyyi wutal dara maa ngi ñaan bernde yi ndadaj sama dëkk yépp ba ci ñi nekk ci tukki bi ci diaspora bi askuru oo taw ji oo xiraaya ilaye fii sëyri wa fii xuraaya kon nga xam ne sëriñ bi fa tabaarakallaahu lépp la fàgguwoon lépp ci xasida gi nga xam ne moom la taarixale màggal gi tudd ci ni muy ni mu bëgg ñu màggalee ni muy xale yi sukura bi fardin wa sunan inda uma wa inda daari ilminan kon buñ amee bis bu toll bii jagleel ko ku toll ni kii di sëriñ Mbàkke Ibrahima defee ko ci daaru minam gii sëriñ bi waxal ne rek bokk na ci fi muy sante suñu borom ci bis bii kon dañuy xam ne daal Serigne Touba kenn rek la mu mel ni nag Serigne Bakki Ibrahima doy na ci rek moom doomi Mambor Mamballa ay sëla ak soxna faati Balla al Kubra moom. sëriñ Balla Paku Dia moom maam Muxtaar Ndumbe kon wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu maam maaram mooy sa maam moo jur sa way jur waaye sëriñ Kokki Muxtaar Ndumbe mooy sa maam moo jur sa way jur bu jigéen loolu doy na sëkk waajtaay ndax lislaam day wax ne doom jim bëgg nga waajal ko doo nekk ba mu juddu nga ko waaye da koy tànnal ay jur yu baax ndax wayjur yu baax ci la doom ji baax mën a juddoo mu juddu kon ci ñaari wayjur yooyu bi mu tolloo ci jàng xam-xam a ah, jàng alxuraan ki ku njëkk a dalal mooy wayjuram maam ay Aysa ba mu noppee mu jébbal ko magam di taaw ma bala ay sa muy Seex Abdul Xaadir mu yor ko ab diir nag jébbal ko ki nga xam ne nag Seex moom la yàlla jaarale li ëpp ci mbiram te mooy magam ju baax gi di Sëñ Mor Anta Sali moo àggale am njàngam ba ci loxoom la bindee kaamilu alxuraan waaye jàngal ko xam-xam ba mu raw bokk ci ñi raw ci réew mi ci géeju ci mboolem fànni xam-xam yépp fa tabaarakallaahu waaye yar ko it def ci moom jikko ak melokaan yi nga xam ne moom la jullit war a yor rawatina koo xam ne nag dafa am lu lay xaar ci biir askan wi ak ci biir penc mi ci ay responsabilité mu ay ci jikko ak ci melokaan eh, yu kawe muy loo xam ne rek maam yi Cheikh Mouhamadou Fadil mii doon wax léegi tey muy Cheikh Moussa Ka li mu ci wax rek li mu ci bind doy na sëkk yaa saa ili an aali ibrahima najli abibi laa ikun fa ima fa huwa cheikhun aalimun taqiyun wa jaa'ilun wa warahun naqiyun nee na boo bëggee xam Cheikh Ibrahima Mbakke moom maam bala Aysa nee na mooy borom xam-xam bu mag ba nga xam ne rag ku ragal yàlla la ba àgg ci àqatu xaati gi ku dëddu la lépp loo xam ne luy jeex la dëgmal li dul jeex te mooy sunu borom subhanahu wa taala ku sàmm la woon ku set sell la woon wa aalimun wa aamidun wa baariun wa huwa ilal xayraati xatmu shaariha nee na borom xam-xam la woon bu doon jëfi xam-xamam waaye koo xam ne waxtu woo ko fekk ma ko doon njëkkante jëm ci def lu baax ak wax ko min badi ma ata minal madaarisi wa daara siitu oo likku di daarisi nee na gannaaw boo xamee ne jàng na boo xam li war a xam lépp ci daara yi itam turam siiw na ngir xam-xam bu rëy ba ak jëfe ka nga xam ne moo ca moo ci topp kon muy nit ku sell koo xam ne fa tabaarakallaahu lépp loo xam ne luy war a daje ci nit yàlla daje woon na ci moom diggante mag magam ju baax ci Cheikh Mor Anta Sali nag liñ ci wax e doy na sëkk ci li mu doonoon ci moom ndax moom daf koo jàppe woon eh, suñu war ante sëri daf koo jàppe woon nit yi doom yi boppam sëñ Mbàkke Ibrahima jàppe ko wéy jur di ko xool bët wéy jur ndax fépp foo xam ne fu ko sëñ Mor Anta eh, sëñ Abibullahi muy maam war a na féete rek ci ay taxawaay ak taxawu moo ko fa féete woon féete woon na ko fa ba sëkk ci anam yépp loolu moo waral fépp fu mas nekk moom la fa àndal moom la fa nekkal fu sëñ Mor Anta Sali dëkk ñoo fa nekkal mbakke Bawol ja ba ca Saalum ja ba ca Pataar ba Mbàkke Kajoor fu mu mas nekk rek mi ngi nekk ak moom di ko wéttali nekk loxol day joram ci lépp sëñ Mor Anta Sali jox ko cër bu mat sëkk digalit njabootu boppam gi ñu jox ko cër bu mat sëkki jàppe ko muy seen wayjur rawatina kii nga xam ne nag mooy Seexul Xadiim e nga xam ne moom seriñ Serigne Cheikhouna Bousso leen wax na ko Serigne Saliou daana wax dégg naa ko ay yoon yoon man ci gémmiñu boppam siyaare ji ko muy wax rek ma tooñ ba àgg ci loolu nee na Seexul Xadiim waxtu wu ma saa wax Serigne bi rek Serigne Mor Anta Sali la ci jublu waaye bu waxee sunu way jur wa rek nee na sëñ Mbàkke Ibra la loolu muy loo xam ne kon wàccuwaay bu rëy la boo xam ne bu mu aman ci moom moo tax bi mu wootee wooteem bii itam bokk na ci ñi nga xam ne tey moom la tànnan ci lépp loo xam ne lu mu xam ne lu baax la wala loo xam ne buñ ko defee dana rekk aw yiw ñaaral na ko mu dikk ko digal mu nekk maanaam bi mayal na ko loolu ci boppam waaye sëriñ bi itam daana doon lépp loo xam ne lu muy laaj kenn xalaat la diiru mu nekk ci kaw suuf moom la jalaat laaj xalaat fonk ko lool ba tukkeem bii muy waajal tukki ci géej gi bi mu koy waajal dafa jàpp yónni Cheikh Ibra Faty ak sëriñ Mbàkke së ñu dem woo ko mu ñëw sii ci Touba bi mu agsee kër gi nga xam ne mooy kër gi sëriñ bi nekk ci Touba sëriñ bi daf ko génn dem kër sëñ Ndumbe kër sëñ ba Ndumbe yëkkati kër googee bàyyee ko Cheikh Ibrahima Fati Cheikh Ibrahima Mbacké ngir fonk gum ko fonk diir mu fay nekk muy juróom benn weer yi itam Cheikh Ibrahima Fati mooy Cheikh Cheikh Ibrahima sëñ Mbacké Kajoor booy jiite tey itam sëriñ bi moo doon nodd muy lu yéeme moo doon woote pour nit ñi ñëw julli si foofee am na fa ñaari mbir yoo xam ne e gannaaw boo xamee ne diisoo nañu ci li muy waajal diir ba mu fa am fayal ma ko am na ñaari mbir luñ ko fa ndax dafa am bokk ci tawfiix yi nga xam ne sëñ Mbàkke Ibrahima da koo amal diggam ak sëriñ bi mooy daf doon am kas xam lu mu ko war a digal dafa mel ne luñ koy wax la ci mbir moo xam ne mbir mu nekk ci kanam la sëriñ bi dëgmal ko Seex Sëriñ Tuubaa dëgmal ko sunu borom defal ca Seex eh, Ibrahima Faati Seex Ibrahima pour mu mu xam ko ba lam ko ca war a wax bu wax ko ci bokk na ci ñaari mbir yoo xam ne maanaa wax na ko xolool yu am solo ci biir jataay muy juróom benn weer yooyee lu ko suñu borom subhanahu wa xamal bokk na ca xamal bu mu ko xamal ne ko may yi nga xam ne suñu borom subhanahu wan na ma ko gannaaw liggéey bii nga dëgg mën te wax ci ak man muy bari lool nga di ko séddale lenn li nga di ko séddale fii lenn li nga di ko séddale fële am na koo xam ne day bëgg naa kenn du ci jiitu kenn du ko ci ëppale muy mu abadu lu mee xabaar ndax bi nga wootee sa woote bi képp koo xam ne maam maaram moo la boole ak moom moo la jiitu ci liggéey bi moo ca man nangu la loo xam ne kenn jiitu ci di ca man ndax moo fay jiitu moo fay mujj te mooy man kum kum fa fekk ak ko fekk kon nag bëgg naa teraanga joojee bu agsee bu ko ca kenn jiitu bu ko ca kenn ëppale mu ne ko insha mu ne ko baneen ba ca des nag ak sarak yii di sama njaboot bëgg naa bu loolee agsee bëgg naa liggéey bii nga xam ne moom nga sung di ko liggéeyal yàlla ak rasuulullaahi ci tasaare diini islaam fexe ba ñépp di dundal sunna ak di ko dund gannaaw kenn ku nekk jànge ba xam li nga war a xam ñu yar la ba nga mel ni nga mel bëgg naa sama njabootu bopp gii bu leen ca kenn jiitu bu leen ca kenn man ci liggéey boobu ci leen jàppale ci jàngale ak yar nit ñi ak wan leen siraatul ba ca topp mooy xiiwal gii ngay séddale mu yaatu lool damay bañ fi nga ma teg ak fi nga leen teg tax bu loolee nga natti leen ca ba nga xam ne danañ ci am loo xam ne mën na leen a yóbbee ñu fuuyu wala kenn ci seeni njaboot fuuyu ba lii nga xam ne mooy liggéey bii ma bëgg kenn du leen ci jiitu kenn du ca man loola mën a jaar seen diggante ak ñoom loolu moom maa ngi ñaan loo xir xir xir bu leen naddil ba naddi boo xam ne dana jaar seen diggante ak liggéey bi waaye nag nanga nga leen defal teraanga ak sutura soo xam ne duñu ñàkk lenn luy tax ñu sol seen dàll tëj daara jooju ak liggéey bi dañ ko digg fu ñu fekk fu ñu nekk nañ am teraanga nañ am sutura te am ak doylu waaye nag buñ am lenn luy jaar seen diggante ak liggéey bi mu ne ko defal nañ la lool beneen ba nga xam ne moom la ko mujjee dénk te loola lii ci jataay ba yàlla du jiitu buy dem ci géej gi beneen ba ca toppaat nag gannaaw bu mu ñibbisee ci géej gi ci bi mu nekkee Mbàkke Kajoor ci fan yooyu mu ko ganisee loolu moom ci digganteeg maam Cheikh Ibrahima Fall da ko wax rek eh, noonu lislaam yi nga xam ne kat ñoo la songan yëg naa ne bàyyeeguñu njagam nag sunu borom dimbale na la ba mënuñoo agsi ci yow mënuñoo agsi ci kenn koo defar ba mu defaroon ku jaar ci say loxo danañu jéem a jaar ci ñaneen ñi nga xam ne njaboot lañu donte ak ñu ci dara ji ji ndar gee nag nga xam ne noon bi nga xam ne moo la sonal fa nekk ña koy jàppalee fa la ñuy nekk ay njaboot yu mel noonu dañ faa fekk ay taalibe yoo xam ne ànd nañu yow jox la sa bopp doy loo la waaye amuñu tawféex yi agsi ci yow ba nga defar leen ba ñu tul ci kenn du leen mën a soppi kenn du leen mën a wëlbati kon nag bu nekkee foo xam ne amuñu kenn ku ñuy rus kon mën nañoo jaar ci ñoom ba am lañu bëgg Ibrahima Fall nag bokk na ci ña nga nekk ga mu nekk ndar tax na lu baree bari ñemewuñu ko te rus nañ ko te damaa yëg ne damaa yëg ne mel na ne mi ngi sa xel boo demee ba toog da ko sant mu jóge foofa gàddaay fa moog la mu fa aman ñëw fii loolu nag. laa gis ne bu amee ba kenn ku ñuy ruus wala ku ñuy ragal nekkatu fa rek loola mën naa ki moom it moo tax ma ñaan lu metti metti rek na am na am jeexit ju fa nekk ju ko may mu di fa dem ak a dellu si ngir ñu ragal mu ne may nañ la loolu lépp tey jëla woon taxawaay bi nga xam ne e moom laa aman ci loolu moo waral e la jiitu loola ci mooy li jiitu lii ñuy wax mooy bi nga xamee ne suñu wax ante sëriñ génn na àdduna te loola sëñ Cheikh naa bu sa am na lum ci junj xam ngeen bi sëñ Mor Anta Sali génnee àdduna te sëñ Mbàkke Ibra ñëw bi dëj ba jàllee ba lépp tegewaat ci yoon fekk na ci mujjug ati sëñ Mor Anta sëñ Mbàkke Ibra ci boori kokki ci ay nijaayam dafa amoon barab bu ñu ko tànnal jox ndal la bi dëj bi jàllee nag mu jàll mu mu mu mu mu wax sëriñ bi ne ko kon maa ngi delluwaat seeti njaboot ga de dellu si bi mu demee nag sëriñ bi moom mi ngi toog di ko xaar bi mu toogee lu yàgg dellu si wut nag gannaaw bi mu yëg ne moom kat sañcal nañ ko ba mel ni faf na toog foofu ah Seexul Xadim wax Seex Ibra Faati ne ko nag kon nag nan dem jëndi ndax ak jikkam fii moom kenn doyuma ci lu may sama jëmmi bopp daal di dem am fa ab diir waxtaan ak moom ba juboo ci delloosi ba mu ñëwee mën a ko dëkk bii di Mbàkke Kajoor suñu war ant seli sos ko tey man damay gàddaay delluwaat Mbàkke Bawol tey nag jox naa la ko ci ndigalal sunu borom subhaanahu wa naa ci ak sunu borom subhaanahu wa ci jox la ko tey juboo naa ci sunu borom ci jox gi ma la ko jox te it xam naa ne mboolem li fi des ci lu ñu war a defal Sëñ Mor Anta Sali gannaawam nun njaboot gi lu ci gën lu ciy gën a dëppoo ak ngërëmam ak bëggam lii am du am ndax nag na nga toll ci moom ak fa nga ko féete woon ba tax na kon loola faggul naa la ne lii ma def kenn du ko dindi tey kenn du ko dindi ëllëg ci njaboot bu ñuy bu ñuy tudd di tudd Mor Anta Sali ndax lu ma am ngërëmal yàlla waaw waaw kon loola muy loo xam ne tey e, loola mooy sababu mu toog nag Mbàkke Kajoor ñu may ko jox ko dëkk ba ba buñ nee sëñ Mbàkke Kajoor rek donte Maam Anta Sali moo sant Mbàkke Kajoor de waaye xel du dem ci kenn ku dul sëñ Mbàkke yi rek ngir jëmi suñ suñu borom subhaanahu wa joojee nga xam ne jëf yi sunu borom joojee nga xam ne Serigne Touba wax na ne lii dama koo def ci ndigalal sunu borom subhaanahu gannaaw bu ma jàng amee ndigalam moo waral itam kenn ku ko dindi wala kenn ku ca ma woon a wax dara am yaa ayyuhaa shubaanu xaatakumoo ilal hudal manaanu fi anna sunnata nabiyil karim alayhi afdalu salaati kulla in kaada turaka rasmi daarin xam afa fisa zamani li mudid wala faa wa tabiat asiratu sahaaba sawil uda wa nuuru wal ijaaba suma talaa umal udda siyooxi sawil tuxaa wal ilmu wa nusooxi ah sunna rasulullahi bu doon ab dëkk mel na ni gàtt mel na ni ab gent fa des yoon yi saaba yi xàllan ak tableau yi ñu defar pour ku ñëw mën a am repère ca fa sunna nekkan màbb nañ ko góor yàlla yi bant yañ fa defaatan yëpp pour xàmmee fi sunna samp daaneel nañ ko ñu ne ko sëriñ bi lu ko waral mu ne historique ixtifaawu asaari salaf depuis daain qad suyinat baynal xalaf parce que yoon we wan nañ ginnaaw carrière fenn ay bidaa caaxaan yoo xam ne dem na ba mel ni mooy dëgg ñu ne ko kon nag lan mooy solution mu ne fasaari wa lil ilmi ajmaina li ma isil jalaali xaasidina qabla tasaddur wal infiraad bi nafsi wal atbaa loolu nag moo xew léegi ah lan mooy solution mu ne ngeen riir sakku ji xam-xam ba xam fi yonente bi tegan tànkam ak fi rasul ak fi fi nga xam ne góor yàlla yi ànd na moom fi lañ tegan seen tànk parce que caaxaan yi bari na nit ñee taxaw naa leen fii la ku nekk taxaw naa fii mooy yoon wi fii mooy yoon wi ngir ngeen xam yoon wi rek ngeen delluwaat ci li rasulullahi bindal ak li gaa baax bi bindal xam la tasatur lu ngeen di jiite kenn wala ngeen di bettiku naata ngeen di dem ak seen bopp loolu la sëriñ bi waxal waaye mu dimbalanu ja lu mu bëgg lu nekk da koy ñaan yàlla mi ko yor mu jàkkaarloo ak boromam ne ko waxab la naa furiyatan tudiimu al amala bil alifi walaam bil alifi walaam liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la góor yàlla yi ànd nag man doon liggéey ba def fi lii maa ngi man boo fi jógee da nga ma may ay sët yoo xam ne dañuy assurer la continuité danañ wéer liggéey bi di ko defee nañ ko doon defee furiyatan ba waaye sët nag yu sell parce que ku sellut mënoo sellal kenn ku jubut mënoo jubbanti kenn kon tayiba nañ nekk ñu saali bala ñuy nekk muslim fu jat jiitu ñoo xam ne danañ yeesal dundal liñ fi fekkan dundal ko liñ fi fekkan ci yaar aar ko ba du wàññi ko waaye aar ko ba du yàqu mën naa bañ wàññiku wëlin ba toll nam toll woon ay yàqu-yàqu nekk ci biir mën naa bañ a yàqu it wëlin ba tànni kon tëj jiit bi mooy aar ko ba du wàññiku du yàqu waaye taj te hidu ah ijtihaad bi fuqahaa yi defal góor yàlla yépp defan ko ba lépp loo xam ne lu jamono laaj te luñ ca war a dolli ñu dolli ko nañ nekk ñu am yitte ci lu seen jamono laaj ci lu ñu war a dolli ci liggéey bi ci lu koy rafetal ak di ko yëwénal nañ am ijtihaad boobu def kon sëriñ bi ñaan na lool waaye damay wax ne dafa waxan doomam ji baax te soxna Fatima soxna Fatja loolu noo ngi ko déggee ci soxna May Kubra la ko nettali mu nettali ko sëriñ Masamba Njaay mi taalif soxna jaara mu netti li ko sama way jur ci sama kanam bu ko ne Fatima nee na soxna Fatia dafa ko xëy toggal laa ko mbar béem di ci sëy bi dafa di ko ba noppi woo ko sant ko gërëm ko ne ko Fatima mu ne am mu ne ko Mbakke mu ne ko lépp loo xam ne lu ngeen te ñàkk ci luy defar seen àdduna ak seen alaaxira fàggul naa leen ko waaye lu ci waay bëgg am nag da ngay waa waaxu wuti ko waaye doo toog fa nga nekk naa na ma fa fekk doo ko wan gannaaw naan na ma dab waaye da ngay jóg gasandu ko barkeb ñaan ga ak ndimalu yàlla daje ak yow kon nag sëriñ bi ñaanal nañu lii nan jóg nag gasandu lii ku sëñ bi faggul lu toll ni lii te sëñ bi waxab la naa la wax moom ak ñi ànd ak moom di liggéey kon képp koo xam ne sa waajur dafa ànd ak moom ci liggéey bii ba résultat bi nekk fii am nga obligation aar ko ci lii ko nar a yàq parce loolee doon wax kat dafa mel ni ixtibaari maa sa yëkkulu sax léegi-léeg sëñ bi dana wax intibaari maa kaana waaye wa intibaari maa sa yëkkoonu parce que kat li bidaa in xat suyinat baynal xalab jii kat day mel ni moom tey na kon nag nan góorgóorlu lax saa yu wax xam ne am nañ obligation aar loola sàmm ndono ndax loolu rek mooy mbir mi te itam loolu rek mooy mooy liggéey bi te itam jotaay yu mel nii lii rek la war a doon maakaar naa addi seen yux tora wala an tasdiqa la si bu dee yéene yi bu dee war amatan li xaw min yoo mi rek la war a doon tawakkul an naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi asiya al haqq wa maw'iza wa zikra lil mu'minin nii la yàlla jàngale sëriñ eh, yonent bi ne ko fàttali ci guddi yu mel nii leçon yañ ca war a jële rek mooy la ca am solo sëriñ Tuubaa yi loolu lu jàngal ci uqa uqan bu kaaw kaanoo ibadan kaanoo nangam kaanoo nangam kenn ku nekk mu wax ñu cër ba nga am ci yàlla ba tax la nga defalan yàlla ba tax nga am cër boobu luy kaan wa ibaatan bi taatin di rabbi umo wa kaana jàlla um ja doog ñëw kaanoo yaw doona kaanoo kaanoo kaanoo kaanoo ba àggal fañ féete woon nit ñi itam ba foo leen tuddee seen i dënn rëcc mooy yëpp di tariqati ahlilaahi waadihatan lil muhtadina jamian bil fuyootaati biñ wootee gars yi wuy si leen wanuñu leen bàyyi wanuñu leen maam wanuñu leen seen bopp yubdi tariqata ahlilaahi waadihatan lil muhtadiina jamian bil fuyoodaati yàlla lañ leen waral ak la leen may la leen doon may yàlla kon gaa yaa ngoogu kon ku bëgg a am cër na nga topp gaa sunu wargal la nag nun nu dundal li nga xam ne moom la fi maam ñi bàyyi woon ci gàttandu gi gàttandu gi gàttandu gi waaye kenn du toog fa nga nekk naa na la na la fa fekk kenn du ko wan gannaaw na la dab yàlla nu yàlla dimbale defal ju tawfiq a wa rahmatullahi wa barakatu